xamuñu li ngay wax mënuñu ko sax imaginer seen xel toll ci xamuñu ñee luñ capable Pape Alé Niang no xeex bi xelu xeexu xel la xeex bu metti la xeex bu metti la Pape Alé Niang sama grand di ko big up de passage di ko ziar ñoom Macky Sall woolu ko pour mu ñëw këram audience Mermoz Pape Alé Niang taal oto yëguma dara ma toog fu ma toog Pape Alé Niang ñëw kër Macky Sall dugg ci saal ba ci saase ñi wër président woo ngeen foog ne lan lañ ma wax allo Mollah naka mu sa waajaa ngi fii de seen grand bi ma ne kan Pape Alé Niang journaliste bi ah waaw kay mi ngi fii di Macky Sall di né négocier mi ngi nii di négocier ak Macky Sall lu leer kay ah bon wuu génnal wax ko sur le cinq Coran loolu lañ ma wax génnal wax ko mi ngi nii ii am nga info bu tàng jër jër jër jër bu bii moom boo ko dóoree dëkk bi tàkk Pape Alé ñaa ngi fii moment bii nii nii nii nii di di nekk ak Macky Sall ak jabaram ak entourage ñi ngi toog fii di waxtaan heure reer ma ne ñii hmm? information pourtant moment boobu bu doon information rek laay wër jaay dëmm dëmmlu te man ak Pape Alé Niang ñoo bokk benn combat te xam naa ne Pape Alé Niang du jaay bi et pourtant boobu mënoon naa génn foofu Pape Alé Niang tàng tàng bi nii nii nii nii nii may wax ak yéen nii ci tàng tàng bi mi ngi ci biir kii ba balaa Pape di génn ñëpp du ko ah, waaw waaw waaw donc ah, mais mais nu mu dafa xam sama kii non euh, euh, lu Pape Alé Niang wax dootuñ ko jàppati si si demoon naa mais nangam naa ga ah, non ah, il a trahi il a trahi il a intelligemment ma jël information bi téye teg téye naa ko un mois un mois ak lu lu ëpp kenn Sénégal kenn waxu ko Pape Alé Niang gouvernement bi après jàpp ko fi tëj ko fi kaso sonnal ko fi may xeex di xeex di xeex bañ génn ko te lépp maa ngi denc information boobu parce que dama ne Pape Alé Niang rek laa ko war a waxal pour pourtant bu doon buggee a yàqamtee génn information jeter le discrédit yàqal ko wala nanga de ma def ko pour wut rek ngand ngandlu mais combat bi c'est stratégique c'est très stratégique koo bokkal doo ko éliminer koo bokkal non doo ko indi doo ko galgal koo bokkal doo ko jéem a yàqal parce que bu fa nekkee sa nekkin day gën a nekk ñaar tànk pour mu taxaw ñaar la boo manqué benn tànk bi sax da ngay teg béki pour mu mën a taxaw donc c'est super intéressant ñuy xeex di ànd super intéressant ma denc loolu Pape Alé Niang dugg na fi kaso ma toog denc information du ba mu génn ba mu wooma moom mu wooma ma dokk ko yëgal ne ko gars yi ba nga jour tel ba nga demee tel gars yi woo nañ ma tel même jour bi pour ma da ba génn pour génn information boobu noonu pour yàq jeter le discrédit jaxase xel yi ma ne teg mu ne ma non mais moo laa loolu loolu moo créé live ñu bëri gën non moo laa moo tëj lu Pape Alé te pourtant Pape ci boppam moo ne ma kaay ñu live information boobu ma ko wax mu ne ma mooy moo laa taalal live bi ñu live moom moo ma ko wax le gens de mauvaise foi ne moo laa ko tëj lu moo laa te pourtant ci moom proposé na ma kaay taalal sa ñu live ko ci question boobu mu wax gars yi jàppaat ko gis nga xeex bi dafa métti de xeex xeex yoo xam ni mais doomu aadama yi duñ xam parce que xam nga tam degré bi ak tam foo ci toll ak information yi ngay am ñoom mun nañ ko bañ a am mun nañ ko bañ a comprendre donc lu bëri dañ la koy ji fekk yow saa waay li nga ci liggéey sax dafa jéggi dayoo mais du waxam du waxto waxtoom du waxtoom ma toogaat fii Dame Mbodj disparaître nekk ci boppam deful live kenn xamul fu Dame Mbodj ne ñu woowati ma système bi Mollah génnal information bi Dame Mbodj instant yi ñu ngi négocier ak moom gouvernement bi ñu ngi négocier ak moom jamono ji ci négociation lañ nekk ak moom ma def teg jëntaat information mais mënu ma jot Dame Mbodj pour no mais lu mu demee noonu aw ma numéro am xaw ma xaw ma ko miinu ma ko ma denc information bi denc information denc information te pourtant moom lañ ma bëgg peut-être peut-être peut-être ñoom bu ñu la waxee mën na mën na xëy na tam na génne la waaw si gars yi rapproché nañ ko mais dafa refusé c'est des informations ma def tekk te information waxuma dara génn ma ne waaye attention gars yi dem nañ gisi ji ko pour wax ak moom daa non dama ne tekk denc information bi mu yàgg ci man ma ñëw dóor kot au lieu ma ñëw ne daa mbooj gars yi ñu ngi koy rapproché non defuma loolu dama ne ana Dame Mbodj gën nañ la gis de Dame na génn ah na temps yi de kot na temps yi de na génn bokk <laughs> ndeysaan ba léegi waxuma ni eh Dame Mbodj ngi négocier wala gaa yi dem nañ ci moom wala non parce que man ak Dame Mbodj ñoo bokk benn combat Dame nekk fi moo ma arrangé Dame taxaw fi moom ma arrangé day mel ni ñaari tànk ñaari tànk yu taxaw moo gën a yomb foofu benn tànk bu taxaw ma def tekk dóor kot maa ngi koy doo ko expliqué dóor kot ana Dame Mbodj mais xool leen Dame Mbodj wër leen Dame Mbodj fu Dame Mbodj ne fu Dame Mbodj ne gars yi non voilà dafa bëggoon dafa doon bëgg accuser Dame Mbodj du fekk xoola xaw jegewuma foofu mais dama leen di comprendre parce que damay xam ni bon c'est vrai c'est normal information yi perception yi amuñu perception information bi may am ni ma koy analyser nu may contourner gars yi te pour pourtant ni gouvernement bi des fois du may ni ñuy jëlee ay information ma ko sànni ci samay nit bëgguma ñëw joxee ko noonu du ma ko joxee noonu temps buñ ko bëggee ma koy def du ma ko defee dama koy denc transformer ko ba mu rafet ma joxe ko sama nit wala ma dem woo ko ne ko gars yee nga lay fanal de gars yi ne nañ lii de wala tout je le fais yàkkamtiwuma information loolu ma jox damay toog teg jël sama temps xalaat xool nan laa war a contourner lii sama nit la kii nan laa war a def pour wiiri nan laa mun a defee nii nan laa ko mun a yàqee nan laa mun a loolu laa gëm nit nekk na fii di wax wax wax bo gars yi dem nañ dugg ko wax ak moom ba enregistré ko te mi ngi laay fii di wax wax wax wax kaw jop jop jop jop yi yónnee ma audio yi faj faj faj lépp ma déglu ko ba léegi musuma ko wax maa ngi audio yooyu nit dugg na jéem na ba woo waa ji ba enregistré ko ba lépp ji pour xam nga mënoon naa tey audio yàgg na de lu ma lay wax nii war na def 4 5 mois mun naa génn audio ne on leen kii nii li may wax nii wax naa kii kii wax naa kii te mi tey saako wax naa kii xool leen fii déglu leen audio maa ngi yor audio yooyu du ma ko def xamul la parce que kooku ak man ñoo bokk benn combat lu tax waa ji dem. wax ak moom di ko enregistré ba di ko jël di ma ko sànni pour rek ma jël audio sànni ko pour yàq non loolu dama yàq sama nit. te nit ki ma bañ bañ bañ wala nu mu bon bon bon bon arrangé na ma ci xeex bi parce que li may xeex moom moom lay xeex sama ennemi mooy ennemi malgré que dafa juum def ma ennemi mais non moon sama ennemi mooy ennemi donc man du ma ko xeex <laughs> man dama koy jël ma cadré garder ko. du ma ko wax du ma ko def du ma def lu ko yàq mukk damay parce que moom daf ma arrangé ci xeex bi. xeex bi benn nit du ko xeex ñaari nit du ko xeex ñetti nit du ko xeex ay nit ñoo koy xeex donc say nit doo ko fagaagal doo ko faqastal ak loo xam ci moom day denc wala boo ko mënee lay biir nga woo ko nag ah, defal attention de est que xam nga ni tel waxoon nga ak moom kooku enseigné la na ma audio defal attention daal boo wax ak ñoom del xool nooy wax ak ñoom parce que gars yi tam ay nooxóor lañ ay dëmm lañ taxawee na la rocceeku kon nag sama gars yi le combat continue ay ca bu kenn des ginnaaw woote nañ le 7 le 8 le 6 le 7 le 8 vive la révolution vive la révolte vive les cocktails molotov voilà ñun dégluwuñ procureur Abdou Karim Diop bandi salte Abdou Karim Diop seen procureur bi bu leen ko fàtte dañ leen leen ko rappeler seen gardien Tony Silva yéen a ngi koy fàttaliku am fi jabaram takk ko ci siraatal mustaxim ñu am ay njaboot ñu jàppante dem justice fekk fa Abdou Karim jóob mu leen di juger Abdou Karim Diop daane Tony Silva seen gardien nangu alalam yépp jox ko jabar ji lu mu gañe lu Tony Silva gañewoon ci coupe du monde ba lim leen fi bégal ci coupe du monde lu mu leen fi bëggal ci coupe d'Afrique lu mu leen fi bëggal ci championnat yi lu mu leen góolul lu leen naawal lu leen jàppal bal tout lépp lu mu def alal gu mu am yépp mu jàppanteeg jabaram seen procureur bii ngeen am nii Abdou Karim Diop nangul alalam yépp injustement jox ko jabar ci ñu ne déet na waay mu suufu takk jabar Tony Silva ba dóor am ak moom benn doom wulli ko ba mu jeex lekk xaalis bi yëpp xaalisu coupe du monde Tony Silva ba coupe d'Afrique ba championnat ba lu muy def yëpp mu lekk ko ba mu jeex takk ba jabaru Tony Silva ba ne wàll mu ne ko nii comme bal bum tulli ko mu dem yoonam te dafa ko koo kese de Abdou Karim day takk di rek loolu la def kooku bu ñëwee di la wax cocktail molotov ne la ko duul fessee bés bu génnee fii xam nga démb la ko war a def mu reporté ko mi ngi toog lu mu xool lu mu fen mooy troisième procureur bu mun a fen da ngeen kaa fàtte nag seen xeex bu bu leen ci fàtte Bassirou Gueye lu salte la fi liggéey da ngeen kaa fàtte kenn waxatul Bassirou Gueye je vous entends plus parler de Bassirou Gueye yéen ku ñëw dem ngeen fàtte moo tax ma gëm ni tey bu fi Macky Sall jógewoon ngeen fàtte li fi Bassirou Gueye def li ngeen fi yëpp léegi da leen tudd sax Bassirou Gueye mais li existé wul te liggéey bu salte la fi def ba léegi mi ngi fi mi ngi fi taaje fu ndox yàgg boo demee fekk fa tepp tepp Bassirou Gueye def na fi liggéey bu salte Hamadi Diouf ñëw remplacé ko def fi lu salte ñëw jox ko booyam suppléant am Abdou Karim Diop mi ngi fi tey Abdou Karim Diop woo Salif si Zaf def ko suppléant ba bu Abou Karim Diop yéegee Saliou si suppléant mooy ñëw toog procureur suppléant ngeen bàyyi ci xel ay bandi ngeen amal affaire ay caga drogué ay sulaar ay criminel ngeen amal affaire taxaw leen pour jàmmaarloog ñoom ay dëmm in firo laqat jaaxum ay nooxóor ngeen amal affaire taxaw leen temm pour jàmmaarloog ñoom Abdou Karim Gueye Abdou Karim Diop amul nii vergogne nii dignité dara amul lenn lu ko may mu war a taxaw ñun gor yi naan day wax ak ñun naan dañuy jox ay leçon wala daf ñuy menacer bés bu fi génnee ne leen ko eh bàyyil yi ngay suufu di jël bàyyil jigéen yi ngay toroxal di sàcc seen alal dama liggéeyi. cagala la bandi salte la sàcc la buñ demee ba Sénégal léegi ay procureur góor jigéen lañ ciy am. Ibrahima Bakhoum ay sulaar Pape Amady Diouf ay sàcckatu jaboru jàmbur ay détourner l'argent du contribuable ñoom Abdou Karim Diop ay tuxkatu yàmba ñuy tëll ñuy tux këll yàmba ay Saliou Sisaf bu dee procureur lañu am kenn ki tux yàmba ba ne tag kenn ki mandi ba ne tag kenn ki juutu ñu laal ko ci tuun ba mu ne tag mooy Ibrahima kenn ki sàcc alalu jirim sàcc ay teere jàmbur laal jabaru jàmbur euh, Abdou Karim Diop ñu ñooy leen ñu jugé ku fa taxaw ñu lay jugé sa yaay baaxul man de ñooñu duñ adduna du neex mukk ba ma taxaw ab sulaar euh, Pape Amady Diouf naan daf may jugé moo ko def def tak ndu jabaram di gedd këram di daw yóbbaale ay doomam muy tëddee mindaanam kooku man kook du ma jugé kuy juuti di joxe boppam Ibrahima Bakhoum du ma jugé kuy sàcc jabaru jàmbur lekk xaalisam kajj ko du ma jugé Abdou kuy tux këll yamba def tag du ànd ak sagom du ma jugé Saalu si zaf et cetera kuy laal jabaru jàmbur ba biiral ko ay Mamadou Seck deuxième cabinet du ma jugé mukk mukk dee ma ko gënal kon résistons les gars vive la résistance le 6 le 7 le 8 tout le Sénégal dans les rues occupons les rues taxaw jëmmal suñu bopp pour sauver la nation peace and love and I'm out jaaraama love